alhamdulillahi bismillah awuusu billah inna di jéggu lu baax dañ doon wuy téléphone da rek moo tax bi dagg ci question sëñ jagaka bi ci la ñuy àddu li ñu xam ñu ciy leeral tuuti pour ñu xam benn bi ci njëkk mooy comme ñi ngi xam ne ñoo dem ci gaal yi muy depuis 2006 ba fii ñu toll tey boroom xam-xam yi ku gëstu xam def nañ ci ay fatwa yu bëree bëree bëri yu bëree bëree bëri du tey mais yàgg na am ci ñoo xam ni dañu wax ne xaru la am ci ñu wax ni du xaru li tax na coow li am ci ak wuute yi am ci wax naa ko sama njël bi wax ixtilaafu ummati rahma wuute gi ñuy wuute yonent bi ne yërmande rek la ndax kenn ku ne ginnaaw amul dalilu xat añu boo xam ni dangay mën ni dalil bii mooy wane ni lii xaru wala lii xaru kenn ko dangay waxe ci ak li ngay jàng moo tax borom ak wuute noonu alaa kulli xaalin nag man personnellement li ma gëm mooy dem ci du xaru waaw dinaa leeral lépp incha allah képp ku deglu audio bi wala ma def beneen audio nga di ko transféré faneen it allah na nga transféré yendoo audio yi ma def yëpp incha allah waaw képp ku déglu audio bi wala ngay transféré samay wax fenn na fexe ba audio yi ma def yëpp nga transféré doo ko incha allah lool maa ngi ko ñaan ku ko ci deful rek nga ba àq waaw su ko defee li tax ñu ni du xaru ñun personnellement xaru question yëpp laay boolee ndoo xaru kiy xaru day am niyya qatla nafsihi day am yéenee rey boppam ak nu mu ko mën a defee moo xam day wan ndipp sa moo xam day jam boppam moo xam day takk buum moo xam waaye moom mooy toog ba yàgg am lu ñëw ci moom luy wane ni loolu sax bu luy waral xaru sax waxtu yooyu kon den ko gën a leeral ci nikki ki ni muy def ba ba ba war a tax mu tax mu tax mu bëgg a xaru loolu Euh, am nañ ci ay kii yu leer nañ yoo xam ni euh, gëstu nañ ci lii tax nit ki xaru bu loolu amee nag nit ni man damay rey sama bopp force ak nu mu ko mën a rey nag loo tax ngi dikk baa ngi gis dem ci àll baa ngay ko takk buum dee dikk baa ngay koo xam ni hmm, day xool jënd ay doom comprimé yu bari yu war a mën a kii boole yëpp composé ko naan ko dee wala yeneen ak yeneen yooyu mooy war a nit ki xaru kon nii lay def moom day yéenee rey boppam yéenee rey boppam su ko defee loolu xaru lay doon amma nag bu dee sihab ci yi ñuy wooye moo xam sufun la moo xam boo waa xirun ci man tudd gaali wala bata yi ñi ciy dem ci ndox yi di jàll di dem maleen réew loolu duñ ko mën a woowe xaru ñun li tax mooy ah, dañoo wax ni kii dem bitim réew tey jubluwul rey boppam dafa am ci gaal gi tàkkoon ci fan yee koo xam ni da cee bokkoon benn magam ma jokkoo ak moom laaj ko ci yu mel nii ndax yu mel nii dañu jar a gëstu ci yu baree bari ndax duñ wax ci lu xamut ma ne ko sarako boobu léegi moom bi nga xamee ni ñoom gaal gi ma ngi tàkk moom daa ràcc nag daa bokk ci ñu ràcc ma ne ko léegi moom bi gaal gi dee tàkk ñoom nan doon def mu ni nee na bi gaal gi tàkk ñoom ñëpp saan ñu ngi wadd cëppeeli ci ndox mi ngir bañ a dee ci làkk gi ñuy fexe di jéem a féey ngir am lu leen wàllu kon da da lay war ne kon ñu bëgg ñoo dee kon kon xaruñ ndax amuñu yéenay dee yéenay ak Espagne la amoon te xaru nag mooy ko am yéenay dee te li tax ma wax loolu ñi ne ci gaal kay koo ci wutoon paaka bëgg koo jam day raw ñu ne ci biir gaal gi koo ci yoroon paaka bu ñëw wuti ko bëgg koo jam day raw te kii xaru moom lu ko rey rek lay bëgg boo ko wutee ndax dafa bëgg kon loolu mooy wane ne kon loolu ñoom ñuy def du xaru lenn rek lañ may def moom muy xaru muy kii def Espagne su nee Barça wala Barsaq dafa xaru moom baat boobu bu ko utilisé ni Barça wala Barsaq dafa xaru da nga war a dem maa ngi yéenee dem tukki jaar ci ndox mi yéene na ma àgg lu ma ci dal nag sunu borom na ma ko jéggal waaye nag man àgg Espagne laa bëgg wala àgg Italie wala feneen waaye nag amaa bu nee Barça wala Barsaq kon dañuy xam ne niyaam ndax yéene na Barsaq kon yéene naa def Barsaq wala mu dem Barça kon loolu lañ daal di yéene loolu lañ daal di xam ne kon xaru la mais amaa bu fekkee dafa dugg ci gaar rek pour dem Espagne yàlla moom ko ci ndox mi kooku xaruwut donte lim def du yoon waaye nag duñ ko woowee xaru pour mu leer euh, su ko defee pour bañ audio yu gudd euh, kon loolu du xaru loolu moom du xaru ñu daal di dugg tuuti nag ci euh, li nga xam ne tey moom la ko tedd ko alxalifatul am li tariqatil muridiyya wax loolu nag di lu mat a bàyyi xel moo tax sax mën naa kuy partage audio yi na nga partage seen lépp euh, donte moom dafa jox ndaw mu waxal ko muy ki nga xam ni mooy porte-parole yoonu murid yëpp mu ni dee ci gaali xaru la nañu bàyyi bu baax a baax moo tax am xam-xam euh, dina baax ak ak nangoo jooyal sa gëstu ci baree bari ma am na loo xam ni nit ki ma ngi koy wax jubluwu ca dëgg-dëgg nit ki xaru boo dégloo discours par parole ci li wax loolu ci ñun ni ko mën a jàng mooy tërhiib la tërhiib tërhiib mooy lan mooy tiitloo ay nit pour ñu mën a def lii moo tax mu wax baatu boobu boo dégloo te am seetante da ngay xam ni li ci wax jubluwu ci ni ñi xaru sawar na jëm waaye tërhiib tërhiib lay def muy tiital ay nit pour ndaw ñi nga xam ne ñoo fi des ñoom bañ a dem te loolu fekk na ko ci alquran alquran wax na ko allazina qaala lahum naas na naas qad jamaw lakum lu waral aaya boobu bi nu xeexee xasatul oxot ñu rey ñu bare bari ci jullit yi ba ñu néew a néew des yonent bi ànd ak ñooñu des war a ñibbi Munoora ñoo Abi Sufyaan ñi nga xam ñoo dëkkan Makkatal Mukarrama a jullit yi bi ñu ñibbi ñoom ñu dem ba ci yoon yi seen xel yedd leen ñu ne ñun daal ginnaaw ñi des ci jullit yi bëriwut Muhammad doo nga fa des ak tuuti ci ay saaba nan dëpp rey leen mu jeex tàkk bu ko defee jullit doon jullit doon am ci kaw suuf bi wa Abi Sufyaan waxee loolu kenn ku dajeeg Abi Sufyaan nga xam ab aaraabi rek la bukkut ci Muhammad gëmul diine Muhammad benn suif la woon wala muy nasaraan waaye gëmul diine Seydina Muhammad waaye nag am na cofeel Seydina Muhammad ndax ma dëpp ma rooral bi Abi Sufyaan dëppee ni danoo bëgg a dëpp daal dem rey Muhammad ak ñi mu des kookoo dajeeg moom te kooku gëmul diine yonent bi de waaye daa dajeeg moom ni ko laa ilaha daa dajeeg baat laa ilaha man maa ko indi doon waaye dafa dajeeg préparé préparation boo xam ni waa Madinatu Munawwara gépp jóg nañ fekk ci ko fa mu nekk ña nga jëlaat seeni ngànnaay dajaloo nañ dajaloo goo xam ni waa naa ni yow Abi Sufyaan boo dëppaatee yaa ngi ñii nga àndal bu ngeen demee Muhammad day leen jeexal rey lii bu ngeen ñëpp takk lay def te loolu amut waaye lan la waa ji doon def tarhiib tiital Abu Sufyaan pour Abi Sufyaan dootul ñi mee àgg ci Muhammad te waa ji sax bokku ci diine Islaam moo tax alquran wax ni inna lazina qaala lahumu naas inna naas xad jamaw lakum kon aaya jooju la kon bu fekkee tey kii xalifa bi teg ci kii dafa wax ni lii xaru la dama dégg xam borom xam-xam yi wax ci télé yeeg yi boo débat yaa ngi ci te dafa mat a leeral loolu liñ ci li ma ci yaakaar ni moom la jublu moom moom porte-parole dafa wax ni terhib la pour tiital gone yi ñu bañ a ci gaal yi loolu ñëw na ci alxuraan lu ñëw ci alxuraan kon leer na naññ loolu mat nay bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon nañu bàyyi xel yi jëmmi dem ci gaal yi moom mënees su ko woowee xaru ndax kii dem bëggu ta dee la feeg néewul barsa wala barsàq ndax kii dem boo jëlal paaka wuti ko day daw boo jëlal xal sawara wuti ko day daw ah boo ko doon yëpp ay fusa day daw xam nga boo ko doon rendi day daw kon kooku bëggu tëddee mais am na li nga xam ne moom la ñu wax ba tax ñu bari di kii loolu tër hiib la sañ na ko wax mooy